déggoon nañ ne ay temps da nga amoon loo wax ci làmb ji te amul woon. est-ce que li daal la aussi di wax lu dul am. 75 combats laa wax ñaari combats ci musta am li presse bugg la waa sunu làmb ñoo ma ko defal preuve à l'appui soo bëggee nga tijji nga liiral sa bopp combats yi ci nekk yépp lii moo tax moo tax yu mel ni ma garder ko sama biir kër Malick Niang laa wax amul mook Sa Thiès Modou Lo Eumeu Sène mais combats yi clé yi. nga échoué non non wu ma de. mais yi nga réussir aussi 60 73 yi nga réussir est-ce que dagaloon tandu rek. non non tandu wala mu am ku nekk sa ginnaaw la wax kenn nekkul sama ginnaaw du ndey du baay du kenn kenn nekkul sama ginnaaw bañ na ko ba sama nijaay sax dafa ma doon tere naan ma bul waxati si làmb kon kenn nekkul woon sama ginnaaw ba ma waa Sen TV bi mujjee jël da see meroon ba woo leen ne leen lu tax su ngeen jël kii du ngeen ma laaj parce que yéen xam ngeen ma waaw kay kenn nekkul sama ginnaaw kenn nekkul sama ginnaaw. kon nag lu tax nga wax combat yi am ñaari te ëppoon importance yi ñu doon xaar amul. waaw parce que làmb euh, combat boobu ba ma waxee bi ma nee Modou Lo day daanu. Mhm. li ma lay wax ni Serigne Ndiaye tam nekkoon si Modou Lo muy dégg Nicolas au passage maa ngi koy nuyu mu ngi ba Europe te muy ànd ak Modou Lo ñëw nañ ba sama kër ak Pape Mbaye ménagère entraîneur Modou Lo xoma mhm. première action bi ba mu njëkkee am. ma mhm. wax leen sarax bi nga xam ne moom la ëmb seen di daanoo. man wax naa leen ko du ma fen wax naa leen ko après ñu indiwaat combat bi ma taxawaat fa ma taxaw rek journaliste yi woo ma période ba ma jot ma leen la ma waxoon wax naa ko la ma waxoon wax naa pare naa ci waaw mm. ah, te ñoom bu ma njëkkee wax ba ñuy annulé combat bu ma njëkkee si guddi ñëw nañ sama kër à partir de minuit lañ ñëw sama kër waaw ah, kon am na yoo du ma ko wax làmb gisee ma bàyyi si wax kenn daa ko ma neexoon damay wax ba si combat Ama Baldé bi mujj ba ma journaliste yi jëlee. ñoom ñu ngi may dégg ñu ngi fii Thiès Média bañ ma woy na ma diw nee na Ama day daanu man leen Ama tey du daanu wax jee bëri rek du daanu comprendre mais dafa am ay kilifa yu ma ñaan ma bul waxati si làmb. est-ce wax parce que amoon nga ci ñaari defet non déedéet wax na waxaat naa ci waxaat naa ci mais du loolu ay kilifa suñ la wooyee dama toog saal Bécaye Mbaye ñu tuddee ma làmb. Mhm. mu sama doom nga yow samay doom ñooy yéenay ànd bul waxati si làmb. Saala bii Ndiaye maa ngi koy nuyu mu ne ma tamit bul waxati si làmb am nga leneen loo mënee te kenn dàqu la ko si ndakaaru jëfee loolu nga ko ni ko ñun xam nañ la yaay kan bàyyi làmb ji ndax dalay yàqar rek